ginnaaw secrétaire d'état américain prince héritier bu Luxembourg son atlas royal daan na amal ab visite ci bërëbu délégation de l'entrepreneuriat rapide visite boobule dina jàppale DER/FJ mu gën a ñoŋal liggéeyam. ah di rafetlu loolu ñu ñëw tey ji xool ni ñu toogee ñu gis tamit ni que euh, demande bi forte na euh, maanaa DER a ngi liggéey DER a ngi accompagner ci ancrage territorial bi ñu chef de l'État di xaar mais DER tamit soxla na ñu ñu ñu jàppale ko ñu dolli ko loxo ñun tamit tey ji DER DER FJ bi que président Santé territoire u Sénégal gi yëpp DER wax na fa étendre ay ay ay am convention seen diggante bi nga xamante ne signé woon nañ ko ci weeru décembre bi ñu jógee tax na ba DER/FJ am ci lu toll ci ñeenti millions d'euros. ñu ngi rafetlu déjà partenariat bi nga xamante ni DER lal na ko ak Luxudev Luxudev bi nga xamante ni ci décembre bi signé nañu benn convention boo xam ni dañu jagleel. DER/FJ 4 million d'euros boo xamante ni ci wàllum mbay mi lañ koy dugal maanaam li ñuy wax tey ji souveraineté alimentaire bi ñu dugal ko ci ñu lal ko tamit ni que dañu war a taxawu ñi ko yellool ñi ko soxlaw ci principe inclusion sociale. boobu leen ndaje teewoon na fa itam ay entrepreneur ñooñu le di bég ci boobu le partenariat. mbégte lañ am bi ñu ñëwee fii nii pour mën a gise teg son altesse euh, l'héritier luxembourgeois mais aussi mën a kontaan kontaan aussi si collaboration bi am entre DER ak euh, Luxembourg donc mbégte la si et day tax aussi tamit ñu gën a mën a développer suñu entrepreneur suñu entrepreneuriat fii ci Sénégal. bile partenariat bi nga xamante ne nguuru Sénégal taxawal na ko ak nguru nguuru Luxembourg dina jàppale DER/FJ. dina ñëw nga liggéeyam ngir gën a jàppale ñu koy tàllal loxo.